salaamaaleykum mbokk yi ginnaaw bu ñu sante yàlla jur seen sallallahu alayhi wasallam ñu ngi nuyu ñëpp di ñaan yàlla dool dal dool jàmm si réew mi ñu ngi nuy alaaj bu gante ko ñaanal ñaanal njabootam nuyu Sénégal yëpp tey dañu ñëw si njariñu soble muy oignon ni ñu ñëwoon si laaj dañ bëgg ñëw soble soble nag defe naa ne dañ koy xam ndax vitamine C aussi comme ni ñu xamee limon xam ko si vitamine A vitamine B1 vitamine B2 vitamine B5 ak vitamine E. donc danay faj anémie danay antioxydant la danay dëgëral sa organisme danay lutter contre danay renforcer système de défense. dinay leeral bët aussi ndax vitamine A bi si nekk nay protéger sa peau ndax vitamine E bi kon loolu dafa am soo xam. Euh, antioxydant la waxoon nañ ko léegi hmm, ndax mino yooyu ñu la wax hypoglycémia la ñu xam ñu ko mais soble dafay wàcc suukar te saa yu jël soble lu bari boo amee diabète rétinopathie diabète du la gaaw a dal mooy boobu daal bët yi bët seen bët du la daal wala du la gaaw a dal na ko àndal bactériostatique la dafay xeex xeetu microbe yi bactéries yi kon boo amee infection sax def ko si ndox fekkante nga naan dafay dindi yenn xeet infection sel-selaani Euh, loolu dafa baax xam dafa am action diurétique pour saw sax jëlal soble nga fayal ko su ndox comme dal nga segg naan dafay yombal si saw boo dee seere aussi def ko boo amee hémorroïde def ko fajalal soble bu ñorul bi rek nga xooj ko si ndox bàyyi ba mu yàbbi nga segg naan lu ban waxtu daf lay dimbali si wàllu wàllu saw boobu loolu baax na baax na xam hmm? dafay protéger le système cardiovasculaire boo dee jël soble lu bëri problème mu xol du la gaaw dal dafay tax sa deret di circuler normalement day raxas sa deret loolu bi maanaam li yeneen li laaj am daanaka soble am na ko mais à moindre dose xëy na laaj dafa ëpp doole tuuti gën a fort dafay yokk désir sooy jël soble lu bari dafay yokk sa yëg-yëgu sëy ñi am problème mu libido ñàkk bànneexu sëy nañu jël soble lu surtout bu kuri bi bu ñorul bi di ko laaj léeg-léeg dafay yokk aussi sa yëg-yëg dafay yokk kàttan affaire bu baax dafay yokk loolu di ko bari su vitamine lax njaay yi mën kon ñiy faj wàllu jafe-jafe lu bëri soble lu am lu am solo la donc bu fekkee nag da nga am euh, jib jib di commencé yaram nga witi di ko leel biy commencé jëlal grain soble yi soble boobu nga wal ko mu nekk sunguf nga koy booleeg xabar sawda di ko diw si fii leer boobu commencé wala fii ib bi yàlla mën def bu solul si mën na ko feneen soo amee aussi jafe-jafe nopp sa dégg dese leer del jël ko naj ndox boobu si koy toxal si nopp yi day leeral day defal dégg-dégg loolu baax na baax na xam soo dee am bourdonnement doole mooy nopp buy sab aussi di siffler dee koy def aussi di ko tooxal si nopp bi moom soble boobu dafay dindi loolu baax na si cataracte aussi dangay ngay dëbb soble bi rek booy tëdd nga diw ko si li wër yi dafa baax si cataracte Hmm? si kaw bët yi nga koy diw nii rek bàyyi ko mu booy tëdd guddi dafa baax si wàllu cataracte day leeral bët aussi loolu mat na mat na mën na xam. Hmm? donc soo amee aussi ictère sa yaram di commencé di defal la jaune jëlal soble di ko baxal si ndox di ko day faj saqat aussi booy saqat sax guddi gi nga jël doomu soble xaar ko teg ko sa wet nii di ko nooy waale guddi gi dafay wàññi saqat wala nga jël soble bu ñor bi noonu nga yëy ko baax na si wàllu wàllu hmm? donc ñi am aussi jafe-jafe pour euh, seen sax. nañ jël huile soble boobu di ko bal diw xabat sawda ak qualité di ko def diwu bopp loolu dafay saxal dafay saxal karaw suñ ñëwee si nag supp bi nga xam ni hmm, dafay dañ koy defaree soble te muy wàññi nit ku am yaram tax nga jeexaat da wut soble lu tolloog ñaari kaas soble man da ngay daggate soble ba mu sew nga wut si ñaari kaas jël li ñuy wax pooro nga daggate ba mu sew jël si ñaari kaas aussi non pooro benn kaas ngay jël soble bi ñaari kaas su ko defee nga jël benn takku persil haché ko boole ko si jël xobu céleri lu benn benn takk nga boole ko faje ko ba sew su ko defee nga wut tuuti vinaigre moom nga koy tooyale wut sa poobar suy si ak sa tuuti xorom jël sa jinjeer def si def ko genre salade kon dafay wàññi nit loolu lu jeex ñu si question yi ku njëkki daal def nii moom daal dafa bëgg maanaam euh, luy dindi xasan xasanu bopp maanaam bopp bi daal day xasan lu bëri day xasan am karaas wutal bineegar rek bineegar boo jëlee limon nga xar limon bi pajal ba mu des tuuti ndox nga càpp ko si bineegar bi di ko bomb si bopp bi ba mu daj sooy def saa yooyu tëdd nga def ko day dindi karaas day dindi xasan xasanu bopp lu baax la si wàll wàll woowu. kii moom nee na daal bakkan ñooy kuule ñooy sotti ndox mu bëgg solution wutal xobu ngi gis ñuy wax le plus nga baaxal ko ba mu baax nga sëgg di ko suuroo si kàttan yàlla dafay indi loolu ñoon tàggu fii leen jox rendez-vous jërëjëf